Monsieur le Président, Monsieur le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprise Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Travail, euh, ak seen collaborateur yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax monsieur le ministre tey nag foog ma wax li nga xam ni mooy mbégte baykat yi ji ci nag féliciter le président Macky Sall ndax fi mu ñu fekkoon li mu waxoon bërki démboo Ndiaye nit li ko gën a neex ci 12 ans yi mooy gunge bi mu gunge monde rural bi mais ñun baykat yi président dafa ñu jàppale ndax fan la ñu jële baykatu ceeb yi jële ñu ci problème bi gën a majeur ñu amoon ko mooy commercialisation ngay bay ceeb ci Sénégal Sénégal ceebu jën di seen plat ceeb mooy li gën a lekk te du ñu jënd ceeb bi ñuy bayee seen waxtu wax jënd ceeb ci Sénégal ceebu mbay mi ndax lan son excellence le président Macky Sall jële fexe bay tey bu ñuy jaay ceeb ñun ñoo koy jaaye bor champ indil ñu contractualisation te xamuñu ko woon jële ñu ci prix padi cent francs yóbbu ñu ci prix padi cent soixante francs kon ñun béykat mënuñoo fay son excellence le président président Macky Sall ko gërëm bu baax a baax ci subvention bi mu mujjee def muy prix padi bi au producteur 30 francs yow si yokk ba mu àgg 160 ndax lan li tax mu def ko mooy ku ne gis na guerre Ukraine ku ne gis na Covid bi mu ni non damay subventionner producteurs yi ndax prix riz blanc bi bañ a yéeg ndax bu boobaa consomateur bi gis ci boppam ba tey gis nañu prix ceeb bi mënul yokku ndax président li mu ko def kon baykat bi merul consommateur bi merul baax baax son excellence le président Macky Sall di gërëm itam ci programme bu mu teg muy le bureau de mise à niveau tey boo demee dans la vallée da fay gis cinquante rizeries lan moo tax mu yokk mooy accompagnement bi nga xam ne moom la ñu bureau de mise à niveau di accompagner accompagner ko riziers yi ba tax tey ñu bëri ñeme dem implanté ay usines tey jii kenn dootul waxati qualité riz bi nga xam ne moom la Sénégal yi di bay tey ñeme nañu haut et wax ni riz sénégalais dañ koy consommer comme il faut amul benn problème qualité ak loolu te brise brise de mise à niveau subvention yu muy def defal entreprise yooyu moo tax ñu àgg foofu te entreprise yooyu dafa leen permettre ñu créer ay emploi tey jii boo demee emploi bi nekk ci ci chaîne de valeur riz li ko gën a yokk bokk na ci implantation usines yu bari yu bari yooyu kon dañ ciy gërëm son excellence le président Macky Sall. monsieur le ministre waxoon naa la ko ci con ci commission yi ni la contrôle bi li gën a poser problème moom la mais tey gis nañu 4 kaat yi nga xam ni tey vraiment président Macky Sall wàcce na ko vraiment pour mën a assurer contrôle bi ci territoire Sénégal yëpp ñu ko ciy gërëm bu baax. waxoon naa la ne nañu bàyyi xel bu baax a baax ci bouteille gaz yi parce que ñun yaay yi loolu ñu safar jeex loolu jax na xoolaat bu baax monsieur ministre ñu ngi gërëm son excellence le président Macky sàll bu baax a baax ci loolu di wax nag ki nga xam ne moo yore marché moderne yi suñu jigéen bi ñu ngi lay woo ci département Dagana ñun gisaguñ ko fenn dañ koy dégg rek dañ koy dégg te yaakaar naa ne bu ñëwee ci département Dagana mooy ville de Dagana wala ville de Richard tool dana tax ñu gën a mën a vulgariser ceebu Sénégal ba nga xam ne tey jii ni ma koy waxee rek président Macky Sall moo tax tey jii suñu taxaw ni ñun ay baykat lañ moo tax tey jii ñu fier mën a yëkkati suñu loxo bu njëkk daawuñu nangu nuyu kenn ndax daaw ñu nangu présenté wu comme baykat ñu ciy gërëm kan mooy son excellence le président Macky Sall jërëjëf monsieur le